waaw ñoo ngi leen di ñoo ngi ci nekk ci turam ak ci santam di leen jottali nuyu ak ziaru da xalif général des Mourides ak imam Cheikh Moustapha ibnu Cheikh Abdoul Khadir bi ñu jiite léegi ci jumaa ji ak imam Bachir Lo ak Khadim ñi nekk ci jumaa ji ak njabootuk sëriñ Touba yépp yëpp di ndokkale fépp foo xam ne fii fi la jullit nekk ci àddina bi ak ci biir réew mi ñi nga xam ne ñoo bokk diine ji ak bépp taalibe boo xam ne bii mi ngi aju ci sëriñ Touba di leen ndokkale ci lii nga xam ne lii mooy tey it di feet bu mat ci diine ci lislaam nga xam ne ñun ñoo ko bokk ñun ñi nga xam ni ñooy jullit yi muy feet goo xam ne gi tabarakallaa eh, coono yi mënut a ñàkk ndax coono ak jafe-jafe moo ko lal ndax ku xam taarixu lan mooy tabaski ak lan la yàlla neexale yonent yàlla Ibrahima bés bi ca ba muy bëgg a rendi doomam nga xam ne muy pas-pas bu rëy ci gëm yàlla ba yàlla wuute la ko fa am xar mu rey ko loolu mooy wone ni lu yàlla nungu la loo xam ni lu rëy a rëy la Seydina Jibril la indi xarma ñu wuutale suñu maam Ismaïla ca fa nga xam ne bii fa la tëddoon baayam nar koo rey bi baay bi rendee ba siggi defe na ni woon doomam la rey kon dafa continuer di rey ba mu siggee la gis am xar kooku loolu pas-pas bu rëy la pas-pas boobu nag ñun ñëpp war nañ ci tënku mhm. nii ko ministre bi waxee ma koy nuyu di nuyu euh, le président de la république di nuyu le premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement di leen xamal ni teraanga yi ngeen fi yónnee woon yëpp jot nañu ci sécurité bi ñëw na assistance bi ñëw na lépp loo xam ne waroon na fi bi ci guddi sax le ministre des finances yónnee xar mu rëy rëy ak teraanga yi ko jiitu woon avec le maire de Dakar moom it ñoo ngi koy gërëm di gërëm suñu mbokk taalibe yi nga xam ne ku ci ne jël na la gën ci yow nga indi ko fii pour def ko muy sa diggante ak Serigne Touba. ñooñu ñëpp nag ci turu sëriñ bi maa ngi leen di gërëm di leen sant muy Cheikh Alassane Sène Ibrahima Ndiaye xale yi bari na boo limee rek da ngay juum kon day loo xam ne fii ministre bi kii rek dafa mel ni on est interpellé boo jàkkaarloo lii ñu bind ci kaw jumaa ji innamal muminuuna la wax ixwatun fa aslihu bayna axweekum wa taqullahu laalakum turhamuuna mooy nit jullit yi dañu war a ànd waxu dafa ni jullit yi al muminuun mooy ñi nga xam ni gëm nañu yàlla ñi gëm yàlla dañu war a nekk ci génn buum linké woo bu ñu nekkee ci génn buum linké woo lu ñu bëgg am ko war ngeen a xam ni sax sur le plan moderne aujourd'hui le link l'informatique il y a plus de frontières et donc tout est possible tout est possible dans la cohésion la solidarité et l'esprit d'aller ensemble ñi am doole muñal gestu ñi amul doole ñi yàlla nga xam ne yàlla mooy fal ñi yàlla fal ñu xam ne yàlla dafa folli fal yàlla nag bu follee fal yow mi nga xam ne bii am na fu mu la jaaraloon ba fal la ba ba ba fal la folli ñoo xam ne am na fu ñu jaaroon ba folli leen da ngay delloo yàlla njukkal ndaxte kuy bëree yàlla téyel la sa cumikaay war a toog gestu sa ginnaaw loolu mooy innamal muminuuna ixwatun li ci des ñoo ko bokk te nag ñun ñëpp dañuy juum amul ku dul juum ndax ñun ay doomu aadama lañu doomu aadama mooy juum koo gis mu juum rek dafa fekk dafa bëggoon a def lu baax seytaane jàpp ci wala àddina dab ko ba mu def leneen kon il faut qu'on regarde de l'avant quand on regarde de l'avant on va réussir ensemble parce que le Sénégal est un et indivisible yàlla def na ni fi mu ne suñu ay jarbaat ñoo fi ne quarante ans cinquante ans mhm. kon ils ont la force physique intellectuel te it ci à partir de 40 ans la wërsëg bi ñëw te ko jiite réew wërsëg wa nga xamee ni bii moom la réew ma tukk nu mu tëtoo yàlla da koy taxañ jox la ko mhm. on vient de fêter notre premier baril de pétrole sa c'est un signe de mhm. alors sa signe de Dieu là yàlla li mu bëgg mooy li ma la wax ma moom innamal muminuuna ixwatu boo ko defee ñi nga xam ne am nañu doole nañu liggéey te tam xam ni la ca kanam mooy la nga xam ni foo pas se faut pas qu'on faut pas qu'on vous divertisse le divertissement day ralentir la vitesse de l'individu vers l'essentiel te on a entendu les discours ñoo ngi leen ciy gërëm lii ministre bi wax c'est l'occasion de répondre xëy na je réponds pas au nom de toute la communauté mais je peux répondre aussi pour la communauté mm-hmm. c'est un appel qui n'est pas tombé dans l'ordre dans l'oreille d'un sourd mm-hmm. mais la collaboration avec le gouvernement nit ñi bëgg nañ ko mais dafa am foo xam ne fii rek dafay sooxe fa muy sooxe mooy dañuy jël des groupements professionnel ñi ñu tuddee leen le patronat patronat yi ay kii yu bari lañu. or boo demee Touba wala nga dem ci sama mbokk Bawol Bawol yi wala mbokk Kajoor Kajoor yi am na ñoo xam ne tey jii boo leen génnee génne leen nangami milliards ñu dem ci vallée bi ñu daggal leen ay tool ngeen bay ko ñu bay ko. ñooñu da ngeen di élargir wax ak ñoom. te ñu ngi fi am na ñoo xam ne ñoo ngi bay boo demee Touba. cheikh boo gis am na tool yi tool yi tool tool tool yi gerte am na tool yi mboq am na tool yi tool yi tool yi tool yi tool yi tool yi ñebbe am na tool yi tool yi tool yi tool yi nu mu tëddee ceeb ceeb bii ñuy bay di ko importé mu doon des milliards nga xam ne sa pèse sur notre balance commerciale nous les opérateurs économiques ñi ñi nga xam ne ñi c'est des hommes d'affaires ils sont dans des secteurs et ils ont des moyens financiers ou bien gouvernement bi encadré leen avec lever des moyens financiers loolu boo ko defee dans les cinq années à venir, dans les dix ans à venir, on sera autosuffisant. J'ai fait une étude sur l'Arabie saoudite en 1984. Sur le plan économique, l'Arabie saoudite importait du blé. Mm -hmm. Aujourd'hui, l'Arabie saoudite exporte et c'est un pays désertique. Absolument. Il y a eu un programme. Il y a eu vraiment les nationaux yi nga xam ne moom la ñu jël ñu boole leen ko ñu ñëw ñu liggéey loolu mooy li nga am solo. Mhm. te l'économie du pays aujourd'hui il est tout à fait normal parce que aujourd'hui les banques y des banques les Français partent les autres banques bu ñu sàq sàq sàgganul les hommes d'affaires ou les hommes ñi nga xam ne am nañuy banque dans la sous-région dinañ jënd banque yi wala les Maroc on a entendu la Société Générale y a un Marocain pourquoi pas les Sénégalais le gouvernement peut lever des fonds peut demander aux, aux opérateurs économiques de faire des tours, tours de table de sortir de l'argent et de prendre les outils qui permettront vraiment au développement le pays ne peut pas se développer sans les Sénégalais. donc li nga ci wax moo tax ma bërëxal ko ci di leen encourager. merci parce que ñun on est embarqué dans une barque. barque bi Diomaye moo nekk capitaine bi mooy nekk commandant bi. il y a Sonko qui le nu mu tëddati vice commandant yéen vous êtes les ouvriers qui son là-dedans lu ñu leen di ñaanal ngeen dem ba accosté ci port bi ñëpp gis ci seen bopp loolu rek la ñuy ñaan ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax yàlla nañ ko julli julli yu bari di gërëm nag vraiment organisation Massalikul naan di ko teg ci loxol euh, Modou mbay Samba Diaw ak Abdou Khadr ñu tasal ma ko ci ñëpp sécurité bi ñaa jigéen ñeeg di ñaan yàlla yàlla nañ ko jullee réew mi nañuy ñaan jàmm ñu xam ne ñun ay sénégalais lañu. bu sénégalais riisul réew mi du riche. bu dee Burkina bu fi jëlee dara Burkina la koy yóbbu bu dee Libanais bu ko jëlee fee Liban la koy yóbbee bu dee tubaab bu ko jëlee fee France la koy yóbbee bu dee marocain bu ko jógee fee fële la koy yóbbu sénégalais bi fi nekk même bu fekkee ni sàcc na sax fii la xaalis bi des fii la koy def nañ fexe rek ba mu peñ fee jógee kon nañu laabirante dafa mel ni sénégalais yi yooyu ne wuñu yi am. te bu sénégalais yi amul le pays ne se développe pas et vous les journalistes on vous remercie et vous devez servir de relais et nous aider ñoo ngi gërëm ñëpp sant ñëpp merci beaucoup monsieur nga ko jàngatee en tant que. waaw mais Kersa c'est quand même assez vaste parce que parce que aujourd'hui euh, euh le problème le problème fondamental aujourd'hui c'est que nous euh, le numérique s'est développé. Et le niveau numérique a une vitesse exponentielle. Et que le législateur aujourd'hui n'a pas suivi et ne peut suivre. ba nga xam ne ñàkk kersa gi am ci réew mi dara indiwu ko lu dul les réseaux sociaux ko làqu ci sa clavier wala nga làqu ci sa téléphone wala nga wut sa truc di wax loo xam ne lii c'est pas sénégalais sénégalais suñu suñu suñu suñu sénégalais suñu coutume ak suñu culture mooy kersa jom très important ba nga xam ni vous devez le fair Sénégal nag li fi nekk du sax kersa gi dafa am ñoo xam ne dañu ni ñoom duñu dem koo xam ni nee na du dem yow it doo dem kenn du dem loolu du yóbbul am réew fépp kon kon maa ngi ci appelé ñëpp xale yi xam ni c'est un pays boo xam ne bii ku ko yàq léegi it bu ëllëgee sa doom a koy doon wala sa sët koy doon te le pays nous appartient je